sénégalais yi nekkaat ci euh, beneen euh, R bu parce qu'on a vu vraiment euh, prisonniers ou bris nga xam ne mën wax ni làqoon na len jant bi li tollu ñaari at ñi ben at ñi six mois euh, ñu retrouver li nga xam mo nek liberté benen wàll bi li nga xam indi vraiment tension euh, fi ci Sénégal bam amont aussi ñetti nit ñak ci sen bokkan mo nek report bi élection bi président de la République Macky Sall ñu doon ci xal aussi ndogeel conseil constitutionnel mu melni ni comme ñoom dañoo dem ci sens du peuple nous dundé cette nuit d'hier euh, kilifa. waaw euh, comme euh, comme comme nous sommes dans une république. Nous avons ay fondamentaux. Nous avons ci registre pour maintenir d'une république alors nous avons des institutions nous avons une justice mais toujours c'est le peuple qui est souverain. Mm-hmm quand on dit que la justice doit être rendue au nom du peuple lors dafa war a nekk loo askan bi saa su parce que quand on parle de sécurité moi, un pays boo xamante à chaque fois à chaque fois le droit doit être dit mm-hmm. maanaam justice dañ ko war rendre ci li nga xamante ni askan bi donc comme ni nga conseil constitutionnel Djel Dogol boo il a il a dit le droit, comme les droits amènent. Il a rendu la justice au nom du peuple, comme les Mayaga au fait dañu dem ba politique yi dugal ñu ci ben ben cano boo xamante fat, dañuy ñun euh, comme je dis les politiques euh, avec les militants tous les partis mouvements ils ne font pas plus de 500 000. Donc les 17 500 qui restent, c'est des lambda, c'est des Sénégalais qui ne militent pas dans les partis, qui ne militent pas dans aucun mouvement, qui n'appartient à aucune obédience. Alors ces Sénégalais, nous sommes le vrai, vrai, vrai, vrai peuple, nous sommes le vrai Sénégal. Mm. Donc politique, yi dem am ñu bëgg a ci réew mi ba ñun ñu commencé dem sax di ci di ci formaté wu. Mm. di len ko di di di mm-hmm. je xawma expliquer. Ndiap, je le dis et je le répète, nous avons des institutions très fortes. Mais le problème que nous avons, moi, les hommes qui les incarnent. Mm. C'est des hommes qui ont euh, sérieusement, mm-hmm. ils doivent revoir leur comportement. Mm. Sérieusement, dañu war dit que li nga xamante intérêt à ce mm-hmm. loolu moo ñuy musal ci li nga xamante ni que depuis que le Sénégal est Sénégal il faut que les gens changent de mentalité il faut que nous ñi basta ñu ne xaaral sérieusement le peuple avant tout nanu nanu on n'a pas de problème aussi de constitution peut-être bon on na ci ay points beaucoup de candidats ils me dégg ñuy wax li indi problème bi moy wañi li nga xamanteni moy président de la république mhm. il faut qu'on diminue le pouvoir d'un président de la république problème parce que oui parce que fi un président de la république c'est un demi-dieu sérieusement mais comment tu peux comprendre ngour ak moy bour borom réew il faut que nous baye di la woyé ces appellations réew peuple bi moy boromam te peuple bi mooy ñi nga xamante ni mooy ñi ma fi wax tout à l'heure te ñoom ay surga lañu ay serviteur lañu donc il faut que ñu am comportement wu un comportement ou serviteur donc comment tu peux comprendre njaab bi tey dara mhm. tu es une journaliste professionnelle jàngi fi nga war a ñu nekk dans une république dans un pays de droit njaab nga am sa opinion tok ci sa télé wala tok fenn dans une invitation nga wax ni man li moy sama opinion ni la gisee mais njaab lolu ñu duggal la ci kaso te buñ la ci duggal kaso dañ lay topé. Yo xamanteni ni sa waay maara deytaal yàq dañuy yàq sa der oui, non, il a fait un appel à l'insurrection, un appel à l'insurrection, il a diffamé, il a, il a, il a, il a tutoyé le président, il a, il a, il a, et, on le soupçonne d'être un terroriste. dit mais il y a ni yu doy waar. Mhm. gàll ko ci sa loos ci loo xamante ni ñëpp ni dara ci mais des prétextes dugal la ci kaso bi. sérieusement après ñu xëyaat un jour oui ñu ne non président bi bàyyi na ñi c'est mais c'est quoi ces c'est quoi ces histoires. il faut qu'on arrête Fofla bëgg ñëw ak yow euh, on a vu vraiment euh, les sénégalais les prisonniers yi ñoom seen vraiment ñu kontaan par rapport ak li nga xam ne moo nekk euh, détenus yi nga xam ne bàyyi na ñu gis ne sa carrément ñu ngi di selfie mais après leur libération lan moo war a leur suite aussi est-ce que ñoom waruñoo topp aussi état bu Sénégal pour des dédommagements parce que de leen toppee won ay euh, mbir yo au yu xaw doy mais finalement si vent de dégèlement bi nga au Sénégal on les relaxe tout simplement. mais Ndiap xam déjà le combat. le vrai combat dafa war a euh, lima point bi ma la mhm. légui dañu wara a ba nga xamanteni ku xam droit. ku droit ba respecter le droit des citoyens. Mhm. Ndiap, il faut qu'on arrête ça. Ndiab Bitey n'est pas avec moi soit waxee lu ma arrangé ak lu ma arrangé dama koy tëj ci kaso bi il faut que nit ñi génn seen xel ni booy def politique il faut nga dugg casso, il faut que ñu y sa der il faut que ñu lay tooxal. il faut que nit ñi génn ci seen xel ni à mes opinion am une position woy li la ciy fekk après kaso le. sérieusement déjà loolu il faut qu'on règle ça pour man war nañu def beneen bloc. pour mener le combat ba nga président bu fuy ñëwati dootoo dégg ñu ne dugal nañ nit ci parce que dafa am opinion am wax ko dootoo dégg ñu ne dugal nañ nit ci kasso parce que day opposé wu doto dégg ñu ne way pour nga dugg palais il faut que tu passes par la prison hmm. je suis désolé té li leen li lay wone ni c'est pas vrai gëmuma moy que ni Macky Sall am sax garde à vue c'est vrai Moussoul am sax garde à vue il est aujourd'hui président de la république mhm. donc lan moo tax ñu bëgg ñu gëmloo ici en Afrique oui il faut que nous kasso, bo jaaree kasso rek mooy la beneen porte bi ki euh, porte palais je suis désolé cela n'existe pas amul dans les autres pays Macron n'a pas passé par la prison pour être élu président amul sérieusement Et pourtant nous sommes des gens très civilisés mm. nous avons un pays nous avons une république nous avons un texte, am une constitution bien libellée même pour faire qu'on am na point d'accord. mais lolo on doit on doit aussi tordre la main au prochain président cette fois-ci nous avons un engagement une signature boo xamanteni le prochain président li muy njëkk def moy duñ fi nekkaat sax di di di une une nouvelle constitution. mais dindi merci beaucoup pourquoi pas pourquoi pas charte assise nationale mhm. le prochain président mu jël ko. doxale ko vraiment ñu épargner ñu yu bari bari bari donc détenus c'est bien ñu libérer leen ñu taxaw def selfie parce que <coughs> kasso déjà dafa nekk lo xamanteni yëfi dof la so fa défé une semaine bo génné rek sérieusement euh, soulagement bi ngay am mën na la kontaanloo ba da ngay def lu weesu selfie mais euh, image image bima ma demb euh satisf nakar la ak mbégte des gens qui vont retrouver enfin leur famille ni huit mois ni un an ni deux ans ni depuis mars 2021 qui vont enfin retrouver leur famille mbégte bobu am ko ci le fait que ñu aura retrouvé retrouver sa famille mais nakar bima ci am moi ay innocent des gens yo xamanteni ni ils n'ont absolument rien fait lu dul taxaw ne dama bëgg sama réew dama koy xéxal dama koy défendre dama am opinion je me sens interpellé dina wax ki situation du pays ñu jël la duggal la ci kasso bi té au même moment tamit benen nakar bima ma am au moment où ñuy libérer ay détenus ñu ngi duggalat yenen détenus ah oui ah oui ñap j'ai vu sur un poste de nuit Dof dire que ni démb ñom biñ ñu leen

man parce que nous, par exemple euh, je pense que nous avons vécu l'expérience ah, parce que pour délit d'opinion on avait 17 ans c'était où à Kaolack c'était à Kaula. on avait 17 ans on a fait trois semaines en prison après nous avons nous liberté conditionnelle à euh, Kini. Euh, liberté provisoire pas liberté provisoire qui nous bi ngay ñëw di signer bi ah? Euh, contrôle judiciaire. merci beaucoup sous contrôle judiciaire. Mm-hmm. on nous a libérés sous contrôle judiciaire. 17 ans 17 ans. mais peut-être ça c'était pour mais je ne suis pas d'accord quand on est mineur on est mineur. Mm-hmm.

je vous dof la sérieusement pour man les seuls gens qui méritent d'aller là-bas moi, un pédophile criminel voilà un criminel moo xam nag lépp lu ñuy naan dañ ko criminaliser mais un criminel sa place c'est la prison mm-hmm. mais ñi nga xamante vraiment pour pour juste des positions mm. ñu jël leen di leen dugal ci kaso yi ñu dem fekkante fa ak il xamante ni une réalité ay crime fait fa dougal, Nous avons beaucoup bokk ñu war la brainwash war la change mind ngay gis yéen ngay dégg yeneen xeetu waxtaan. man j'ai peur pour cet enfant la nga hein. dégg ñuy toog di nettali ay fait way bi ma jàppee waa bi ma koy bi ma koy faat affaire yooyu. Oh. donc yow yooyu boo génnee mën nga jàpp ni looloo baax. Mm. nga dund ko ci benn chambre. pendant un an ngay dégg waxtaan yooyu mais njàpp di la def. benn wàcc chambre yi tar na. Ah. tar na parce que. Je rappelle aux Sénégalais que Brebes Guinée, euh, euh normal, c'est 500 prisonniers. Hmm. Ouais. Mais quand on te dit que Rebus dañ 2500 voire 2800 prisonniers, donc euh, na xel des dem qui ni ñu ngi tàncaloo. Oh. na xel yëpp dem ci ni ñu ngi dund paquetage. Oh. donc euh, doy na quoi mais en tout cas vraiment on doit le mener ce combat. Mais la suite aussi, euh, Kilifo, par rapport à combat Bobo, la suite, là, la donne parce qu'il y avait aussi euh, des dames qui ramené euh, dougalon en prison, comme comme aussi la dame Amidia, qui ramené, moi, je suis rattaché à ce que nous avons, nous avons force spéciale dans ce climat de paix et de dégelement, on euh, koy libérer euh, tout simplement et les enquêtes par rapport à ça si toutefois li peut koy toppee amul euh, est-ce que l'État du Sénégal est dédommagé aussi hein? Parce qu'il ne faut pas aussi nous, nous, nous, nous euphoriques, les Sénégalais. Merci Parce que nous, on ne règle pas des problèmes, on les déplace. Merci beaucoup. Nous, nous avons fait que bale bale bale bale bam, poussière bi dajalo wala ba bi dajalo mhm. ñu yëkkati moquette bi duggal ko ci. saa bo yëkkatee moquette bi di ko fa fekkat c'est vrai. au lieu que ñu ko dem. Mhm. mais duñ ko mhm. tu tu as parfaitement raison. tu sais euh, c'est très grave une dame. une mère de famille wala un père de famille. voilà quelqu'un qui xamanteni comme ben nit nga jël ci des accusations va mais fii ba ginnaaw suba mën na leen topp parce que ce qui est sûr moi, man xaaruma ni procès dina am xaw ma lan lañ leen relâcher non lieu lan leen lañ leen bàyyee xaw ma lu ñu leen xamul n'ont pas encore communiqué. parce que quelqu'un qu'on dit qu'il est terroriste quelqu'un qu'on accuse de force spéciale quelqu'un qu'on accuse de de de de de de incitation à la à la à la violence ou à brûler le pays c'est des des accusations très dangereuses Quoi ñu xëy ñu ne bàyyi nañ ko nan lañ ko bàyyee mhm. nan lañ ko bàyyee est-ce que nous n'avons pas de épée de Damoclès loo xamante da koy mm. rek quoi da yomb je fais confiance à leurs avocats et tout mais aussi nous avons affaire avec des gens de très mauvaise foi mm. mais en tout cas on doit poursuivre le combat c'est aujourd'hui que le combat le vrai combat ci la commencé. commencer Mhm. Et le vrai combat, moi, il faut qu'on répare vraiment ces erreurs. Mhm. Il faut que nous réhabilitions ces, gens. Il faut que nous lavions cet honneur. il faut que nous taxaw carrément ñi nous surtout qu'on est dans une société assez vraiment brutale pour ko prison voilà les avis euh, sont vraiment. mais de uh-huh. parce que là, après. Eh mais bon euh, en tout cas ne dormons pas sur ce qui s'est passé hier mm-hmm. pour man euh, peuple souffle tu ci li am souffle. ci moi je suis super content C'est aussi euh, libération nit Abdoukar, euh, je suis contente si ñëpp ñëpp. quatre personnes mais il y a des personnes qui ont ramené vraiment c'est des personnes qui ont ramené de la proche comme Abdou Karim mhm. le professeur Cheikh omar Diagne mhm. nit doof ak vraiment euh, mon frère euh, Alou Sané. bi nga mhm. xam ne moo nekk coordonnateur bu mouvement Yanama. a déjà ça si des démb gis neen mu defoon poste di xam ne ne moom amnésie si waxu ci dara. voilà. mais comme Alun Sané, qui a commencé le combat depuis, mhm. depuis ça, tout, depuis Bimoui Am 16 ans, mhm. euh, c'est pas aujourd'hui qu'il va céder. Sérieusement. C'est pas aujourd'hui qu'il va une compromission. Mm -hmm. C'est pas aujourd'hui qu'il va non juste pour retrouver la liberté, il faut que tu mhm. Il faut que le ça déshonore donc euh, euh, nous comprendre le jeu des politiques. Mm. ba devons accepter. même depuis même derrière les barreaux il continue de résister. Mm. et ça c'est un acte très fort. Mm-hmm. Aline Sané quand on l'a eu au téléphone quand il nous a appelé mm. euh, amnistie. il nous a appelé carrément Mais moi à Sané je n'accepterai jamais ce soi-disant amnistie ou je sais pas je sais quoi su fekkente ni liñ may toppee dafa am nañu ma procès ñu jugé ma luma ci def ñu le ma ci deful libéré sérieusement mu nekk un acte très fort ñu lolu doyu ko ñu message publié mhm. sénégalais même en prison il continue de résister mm. kasso neexul aussi garder ta dignité dafa parce que kaso tôt tout tard day kasso lu mu yag yag yag day jeex ki gën yag ci kasso Nelson Mandela la 27 ans. c'est toute une vie hein. c'est toute une vie te pourtant après ci netali la mujjé mm. dafa xey jeex donc kasso lu mu yag yag day jeex mais amna lo xamanteni mom daf lay top ci sa àdduna fofu lay wax ni euphorie bi c'est trop tôt nanu régler ces questions ay jàmbur ay nit yu bax ay nit yu taxaw di xeexal sen dëkk lañu ñu jël tuumaal len tooxal len yak sen der ci dig askan bi tej len ci kasso yi xeyat ne nañ te au même moment tamit ñu ngi jàppaat ñenen ci les mêmes faits les mêmes reproches et les mêmes faits ne dañ len di ci yi mais à quoi il joue en fait à quoi il joue Fatima la sonko les il paraît que demb lañ ko déféré ah oui mais oui qu'est-ce qu'elle a fait oui. <coughs> yi ñuy def rek ah yi ñu jàppee ñëpp ñoom ñëpp c'est-à-dire nga njàpp li ñu def mooy que ni ils appartiennent à un parti politique boo xamante ni peut-être c'est un parti politique boo xamante ni déjà neexul le pouvoir qui est là en place sur place <coughs> ñoom ñëpp ñu ci bëree bëri li ñu def tamit ñeneen ñi mooy dañu am des opinions mm-hmm. yoo xamante ni tamit bokkut ak maanaam gis-gis bu bokkut ak ñi ñom Macky Sall di gissé mais lool kese la amul leneen luñu def. ludul ñun ni ngeen di gissé ak ñi ñuy gissé bokul ah ñun ci parti bi lañuy militer ñun kat dañuy taxaw parce que euh, on est interpellé donc il faut que ñu waslu àq ci li xew ak li daw ci dëkk bi mais njàpp yow ci sa bop tu reçois des appels venant de tes proches. Mhm. eh njaab njaab moytul. defal attention defal attention <laughs> xamal looy wax. non mais attends ñu dem ba. mu nekk psychose les parents s'inquiètent. Boy, booy toog à la télé boy de solo di dem télé ah xamal looy wax de. Macky de day tëjaate de. non mais attends quoi. mais qu'il faut, sans que wax ne.